ci élection présidentielle 2024 yi waaw wala déet naka noonu aussi candidat bii di Anta Babacar Ngom dina daal di waxtaani mbiram ndax moom boo xamee bu baax a baax doom la ci kii di Babacar Ngom mi jiite Sedima naka jamono yi la ci ginnaaw ñoom jàkko jotoon nañu am problème ak population bi yeewoo fële ca Dengaleer ci mbirum litige foncier naka noonu aussi ci mbirum conseil constitutionnel moom Anta Babacar Ngom jot na validé lii di étape parrainage am nuy daal di samp ab laaj nan la daal di def ba Diallo Aminata Touré ak kii di Aïda Mbodj moom élection présidentielle 2024 yi mu nekk jigéen bu njëkk jàll ci mbirum parrainage en attendant nuy xaarandi liste définitive yi di génn nuy daal di samp ab laaj kii di Anta Babacar Ngom di doom ci Babacar Ngom est-ce que mbirum ndengaleer bi euh, du ko porter préjudice maanaam est-ce que tey ji population yu nekk foofu gën ca Mbuur duñ ko jàppal benn mer goo xam ne amaan na ci baaj la dooree Uh-huh. population bu Sénégal lay nekk en général parce que euh, naturellement euh, noonu la ñuy xalaatee et que c'est quelque chose de très normal uh-huh. mooy loolu dina nekk benn euh, préjudice comme ni nga ko waxee boo xamante ne ni dina tegu ci kaw donte nekkut moom personnellement euh, moom moo am projet boobu mais uh-huh. nit ñi dañu lay xool par exemple moom Anta bu ñu waxee Anta lu ñu ci teg tour way juróom lañ ciy teg e que donc image boobu Euh, forcément sénégalais dinañ ko xoolee. Mhm. et que loolu itam dafa doon loo xamante ne ni dafa laaloon xolu ñu bëri ci sénégalais. absolument par rapport ak situation boo xamante ne am na entre ki nga xam ne moom moo di euh, Babacar Ngom ak euh, ay ñu dëkk ca dëkk boobu di Ndengaleer. Mhm. donc coow loolu amoon ci ci réew mi ba ñu bëri daanaka amoon ci lu leen metti par rapport ak ni mbir yi demee. Mhm. tey jii moom bu ñëwee nekk doom ci Babacar Ngom. nit ñi mënuñu ñàkk di xalaatee ci sens boobu donc moom aussi comme ni ko journal bi waxee gëm naa ne euh, elle a intérêt à ce que mu xëy na jéem a dox ay jéego yu jëm ci loolu. parce que mm-hmm. loolu ko qu'on puisse dire donte moom jëfu ko wala donte moom loolu jugewul ci moom. Mm-hmm. dina doon benn tâche boo xamante ne peut-être dina gàllu ci koom. parce que naturellement nit yi ak ni ñuy xalaatee ils vont se dire diw doomu diw la te diw mu yoon defoon lii ak diw moo jote woon ak baykat yeeg. Mm-hmm. yu demee noonu donc très bien euh, même euh, ki nga xam moom moo di woy juróom di Babacar Ngom jéem a dox ay jéego ci sens boobu bu fekkee ni ci élection présidentielle yi ñu jëm bëgg na xëy na benn résultat boo xam ne euh, dina jógee ci candidate Anta Babacar Ngom. mais ce uh-huh. qui est sûr mooy euh, loolu dal ci kawam wala loolu nga xam ne nii man naturellement. Uh-huh. soo ko xoolee di nga ne kii mooy kan ñu ne la kii mooy diw. Uh-huh. Anta Babacar Ngom nga xam ne Anta mii kat moom mooy parce que euh, xëy na profilam dafa lié ak profilu ki nga xam ne moom moo di woy juróom. te boo ko xoolee rek sa xel dina dem ci nga xam ne moom moo di woy juróom. donc doon loo xam ne lu koy tache buy taq ci kawam et ce serait très bien mu jéem a lijjanti je pas de quelle manière. Mhm. mu jéem a entamé tey ay négociation wala jéem xool daal lu ñu rafetalee mbir moom euh, bala ñu àgg ci mais est-ce que béy wayul mbuus ndax booy xool euh, situation mu doon situation bu metti bay affrontement mhm. jotoon ci am. finalement nga gis préfet bi ñëw arrêté bépp liggéey boo xam ne amoon na foofu ci euh, surface ba. Mhm. donc tey jii bu ñu waxee élection présidentielle amaan na weer moom moo ci daal des. moom Anta Babacar Ngom nekk candidat nekk aussi doom ci ki nga xam ni moo di Babacar ay négociation ci a xool nan la koy euh, rafetale est-ce que nekkul euh, lu xam ne si un peu trop tard parce que jàpp naa ne loolu xëy na euh, dafa waroon am ci njëlbeen maanaam mhm. muy jël décision wala di am taxawaay par rapport mhm. par exemple ak ci wër yi nga xam ne mi ngi ko doon def ci biir réew mi dem di dem vers les Sénégal mhm. man jàpp naa ne waroon nañ ko mën a diggal ci dox dox yooyu nga xam ne wala nemmeeku googu muy def ci askan wi mu dem par exemple à Ndingler parce que sénégalais yi daanaka Euh, bëri na xëy na xadar bu ñuy demee mais am na loo xam ne ni actes yoo xam ne boo ko posé. nit ñi dañuy gis euh, seen bopp par rapport ak actes yooyu et que nit ñi euh, amuñu problème ngir pardonner wala ngir fàtte yenn yi. donc li li gënoon rek moo ñu posé acte mu doon acte bu rafet. moo xam ci moom lay jóge moo xam ci waajuram boo xamante ne dina mën a effacer gàkk gàkk yooyu noonu. parce que xëy na am na ci ñenn ñoo xam ne. loolu du seen problème. Mhm. ñoom antan lañu la ñu gis et que voilà lu mu discours bu muy prôné moom moo leen intéressé. Mhm. mais les Sénégalais ils s'intéressent à kii kan moo bëgg a nekk candidat. Mhm. kan mooy peut-être way juróom donte xëy na du way juróom bu ñu demoon ba koy dénk réew mi euh, moom mooy yor réew mi. mais les Sénégalais dinañ bëgg di c'est-à-dire dañuy def lien et am na nit ñoo xam ne peut-être comprendre ñu. Euh, réellement ce qui se passe dañuy jàpp ne rek euh, xëy na jël ay clichés daanaka. di ko teg ci sa kaw. donc comme mhm. je l'ai dit doon na baax loolu mu mën a passer l'éponge ci mbir moomu. balaa ñuy egg ci ci ci ci ci élection présidentielle yu ñu jëm. donte mhm. li si des daanaka euh, ci temps bariwul. mais xëy na bu ci tegoon at rek bu jëm ci loolu xëy na mbir yi mën naa rafet. Mhm. exactement ci wàllum candidature yi dañuy desandi ba tey ak kii di Amadou Ba moom mi jiite euh, coalition bi di benn Bokk Yaakaar euh, ñu ni daal di xamal ni moom Amadou Ba dafa daal di incapable pour affirmer wu comme candidat ndax booy xool ñaari ndombal tànk la daal di am. ma premier ministre ak candidat aussi bi jiite coalition bi di euh, benn bokk yaakaar moom aussi euh, beneen euh, coow bu muy daal di jàmmaar mooy ñi nga xam ne ñoo faree ci moom di ko di menacer li nga xam ne moo di candidature am moom Amadou Ba actuellement bépp démarche wala bépp sortie bi nga xam ne daf koy def en tant que premier ministre di jaaree noonu di wane li nga xam ne nag moom moo di candidature am moom Amadou Ba nu yàgg ko gis ci état bu Sénégal muy liggéey ak ñoom mais moom dafa doon candidat boo xam ni politique néew na ci li nga xam ne jot na ko am moom Amadou Ba boo leen fàttali ko na nañu wax ni am na lu toll ci 4000 parrains waaye fële ca conseil constitutionnel li nga xam ne moo di parrain des élus loolu daal di déposé foofu nuy daal di laaj est-ce que nekkul dafa ragal am li nga xam ne nag moo doublon comme à chaque fois nu koy gisee ci yenn candidat yi Amadou Ba premier ministre Amadou Ba candidat. élection présidentielle amaan na weer moo ci des te jusqu'à présent Amadou Ba mi ngi wëyal porte li nga xam ne nag moo di premier ministre bi lan moo tax Amadou Ba mënul détaché ak li nga xam ne moom moo di ministère boobu. li nga xam que tey. exactement euh, exactement peut être duggaguñu ci ci ci ci yenn. voilà loolu c' est très important xam naa dinaa dikkaata yow parce que am na benn paragraphe boo xam ne bëggoon naa aussi ma daal di koy euh, souligner. Mhm. juste si côté bi nga xam ni moo di Amadou Ba bu nu fàttaliku bu baax a baax fële ci euh, Parcelles Assainies mhm. gis nga kii di Jamil Sané nekk poulain ci kii di Ousmane Sonko mhm. ba mu ñëwee si élection locale yi daf ko fa daal di gagné mu nekk benn mbir moo xam ni amaan na bu nu bëggee jël Amadou Ba comme candidat dina jaaxal ñu ñu bëri présidentielles yi ñuy daal di dëgmal waaye aussi élection législative yi euh, gis nga foofu ca Parcelles Assainies aussi euh, moom pour mu daal di fay am li nga xam ni moo dina am doon mbir moo xam ne c'est euh, dafa doon lu compliqué alors donc tey jii si wàllum popularité si wàllum nit maanaam tey jii pour nga nekk candidat sénégalais yépp am reconnaissance si yow il faut nga am li nga xam ni moom la ñuy wax base politique am aussi li nga xam ni moom mooy représentativité tey jii Amadou Ba même bu fekkee moom moo jiite mouvance présidentielle bi amaan lépp loo xam ni wàllum financement la yomb ci moom mais tey jii bu fekkee mënul la dajale nit ñu bëri foofu ca passé asèn doon na mbir moo xam ni mbir mu bu jaaxal nit ñi la même aussi naka démba gis nga benn vidéo buy def tour ci réseaux sociaux yi euh, ñu ni jot a xamal ni moom Euh, meeting bi nga xam ne waroon nag amal nag dem fële ca Parcelles Assainies ko daal di jasakalisé euh, maanaam bëriwul li nga xam ne nag moom moo di ay nit n'empêche que tey ji effort yu ñuy jël di ko teg ci euh, kii di Amadou Ba pour mu mën a wëyal bu baax a baax candidature wala def li nga xam ne nag moo di promotion wu élection présidentielle 2024 yi tey ji booy xool ba ci biir moom amaan na kii di Amadou Ba lépp lu ñu doon xaar ci moom jotu ko mën a matale alors tey ji ku mënul gagné li nga xam ne moo di sa sa dëkk maanaam sa base bi nga xam ni fa ngay koy waxee est nga bu demee si élection présidentielle yi dina mën a cartonné comme nañu koy xaaree ci moom. question ko waxee moom la xamal Sénégalais. Mhm. Euh, parce que tey réew moo xamante ne daanaka population bi ñu ngi ko estimé à dix huit ak ak lu teg ci ci ay sénégalais euh, ñu nga bëgg nekk président alors que localité bi nga xam ne euh, daanaka moom moo war a nekk sa fief. daanaka da ngay am difficulté ngir euh, mën a gagner ay élection ci ci ci localité boobu itam danañ poser question ndax ku mënta gañ ab localité euh, dina mun a laaj li nga xam ne nii moom moo di am réew mais pour man problème bi dañu bu ñu ko résumer rek ci ci Amadou Ba parce que c'est de la de ça parce que tey jii nii pour man euh, xëy na bu fekkoon am na beneen choix bu bu gën taxaw choix bu Amadou Ba peut-être président de la dafay daal di miser bu fekkoon am na xëy na beneen ténor boo xamante ne nii mën nga ko lim comme euh, candidat mën na def mieux que Amadou Ba defe naa heure bi duñu duñu tànn Amadou Ba euh, le président même euh, ci buy justifier le fait que mu choisir Amadou Ba dafa jàpp ne moom moo tane par rapport ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk mhm. et loolu ça veut tout donc la nga xam ne ni moom la war a incarner pour man war ñu jël faute bi rek wala mbir yi teg ko ci kaw ki nga xam ne moo di Amadou Ba mhm. mais pouvoir la boo xamante nii dafa nekk en place et dafa am rupture bu am entre